xam moom mooy maître Madické Niang ci actualité bi nga xam ne nag moom moom mujjee jëm ci li nga xam ne moom mooy euh, déclaration Macky Sall ci 1er janvier waaye tamit ci actualité politique moom Madické Niang fan lañ fas yéene ñëwee tey ñu seeti ko. Adja Khoudia Adja Khoudia waaw maa ngi dem fii te ñëw expliqué rek te ñëw du ma yàgg soobee yàlla. mbokk Sénégal maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen xamal ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar yàgg naa ko wax te tay naa tamit di ko wax ndax ñëpp xam nañ ko léegi waaye nag li Macky Sall wax ci la premier janvier bi déggul lañ ko waaye ba nga dégloo ñaar laa xam ne dégguma wax ko mooy dinaa libérer prisonniers yi ak dinaa fexe. ba arrêté topp yi nga xam ne maa ngi koy topp nit ñi tere leen ko ñu tukki man loolu ma intéressé woon mais dellu di xamal ne président Macky Sall ne waxtaan bi nga xam ne moom la bëgg ñu def ko balaa ñu koy mën a def moom ci boppam na bàyyi lépp lu mu jàpp ndax tamit nit ki mun a wax ak moom ba pare jàpp ko man ta am mën ta am waxtaan bi nag boobu ba léegi ñu ngi maslaa ñu ngi maslaa débordé fit na fitna waxuñu kenn dara waaye nag liy jot jot na ginnaaw dee. ndax bu fekkee ne président Macky Sall boobu ba léegi mu ngi di tëj di tëj te buy ibbi di ubbi koo xam ne ci ñun la jugee kon waxtu bi nag pour defante jot na ndax ku ci mel ne Adja Aïda Diong nekk ci kaso bi Ndeye Khady nekk ci kaso bi Thierno Ousmane Sy nekk ci kaso bi Karim Wade nekk ci kaso bi Bayla Wane nekk ci kaso bi Maadou Sall nekk ci kaso bi Abdou Aziz Diop nekk ci kaso bi ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne bu mu leen doon lim tey day yàgg. te gars yi barke démb ñu ngi may man ñu ngi may wax ne ñëw nañu ba sama booru kër di yendu di xencu man li may lekk ndax ba tey dafa changé wala changé wul moo tax ma ne Adja Khoudia bu fekkoon na da nga doon togg mbaxal soos na soos bi gën a jambaajoo bu dee mbaxalu puuj paaj la na gën a paaju bu dee mbaxalu cere bi sa cereb la na gën a cere waaye dinañ xamal na du xet gu neex ak solo mooy tax ñu mën a yaakaar dafa am loo jël man dara topp ma te kenn topp ma bakk sim saaliw te nag jot na nag ñu xamal nag président Macky Sall bu fekkee dafa bëgg liggéey ak ñun nan wax nànk ak ñun te bàyyi topp yi ndax topp yi jaru ko topp yi jaru ko foo tourné ñu ne la barke démb nga nii barke démb nga nii mu war a dem ba France mënumaa ndax lu ñu wax ñu ne ne dañ leen di topp ci laan koy topp di ko topp di ko topp gauche topp ko droite mënoo koo mënoo koo gis bàyyi ko mu dem yoonam waaye nag di am mbégte ak contentement di ñaanal képp koo xam ne dañu ñaanal ba tey yàlla may ñu jàmm di ci am mbégte ak contentement bu rëy di sant yàlla di sant tamit Touba man de maa ngi dem toog Touba xanaa nag ku dem toog Touba jàpp sa ñaambur fas yéene liggéey ci yoonu murit ndax xam naa ne ci yoon boob laa fas yéene taxaw tey liggéey ci nekk avocat képp koo xam ne taalibe murit nga te bu fekkee ne Macky Sall murit la ab murit du tee ab murit dama koy fàttali toujours naan ko ab taalibe murit du tee ab taalibe murit makki boo buggee dëkk bi neex saraxal sarax bi yomb na ibbil bunt yi gars yi génn war nga wax ñu loo xam ne moom na ñuy def waaye tee ñu ne ràpp ñu dem Màkka ñu dem Médine duñu dem Rome duñu dem na toog dañ ne yaaj ñu yasar man nag yasar gann gi laay bañ ajaa ko jo ñaar naa la ko xamal li dal ay da jong mun na maa dal ëllëg maar day taani waaye nag ci teelaa la bu nga xamal na ñii duma xaar ñu may song maa leen di songi Macky Sall ci nii war a ci ne la danañu bàyyi parce que na mu nam nañu gis tubaab na nañu gis ay naar nam nañu wër kaaba gi na ñu def la leen waaye fu mu ne nii ñun ñu ngi bëgg a dee at ak ñaari at genn wàll mënu ñoo génn ci réew mi li lu ëpp lu tuuru parce que sëñ Saliou ajaaku ja